jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi état bu Touba dafa tawat waaw dafa feebar mbokk yi am kayit ci dëkk bu selli bii mbokk yi fitna la déclarer sa doom ci mairie bu Touba fitna la da ngay jóge fu sori paas lu seer dox ci naaj wu tàng yu ba yegg si ñu delloo la ne la xaaral ñetti weer mbokk yi boo dellusee ñu ne la signé guñ ko ndax lan jafe-jafe signature la ñu am yàgg na fi de waaw waaye keroog ba kenn ci jàmbaar yi nga xam ne ñoo doon signé kayit yi di officier d'état civil boo xam ne nii ku nangoo liggéey la ku sawar te jub la liggéey bi bëri na amuñ benn considération bëri na ay risque nag ci borom njaboot tekki na ay ndombay tànkam jafe-jafe yi gën naa tar adjoint bi ko remplacé di ancien sous-préfet ba léegi liggéeyam ndax lan ata ngi nii mu ngi ci mairie bi amul bureau rax ci dolli agent yi nga xam ne ñooy liggéey ci état civil bi mbokk yi joxuñu leen benn gëdd amul lenn lu leen di sawarloo ñëpp xam nañ ne ay jàmbaar lañ ndax liggéey bi kat ëpp na leen loxo am na ci ñoo xam ne def nañ lu ëpp fukki at ci mairie bi amuñu CDI salaire yi ñu leen di fay sarax la daanaka amul lenn lu leen di sawarloo liggéey bi bëri na te ëpp na leen ay jàmbaar lañu de jamono yi nga xam ne état civil bu Tuubaa mu ngi dund jafe-jafe yu tar yi recruté fonctionnaire boo xam ne dafa retraité retraité di ko fay salaire boo xam ne boo ko xaymaa mën na fay fukki agent ak ñett yuy liggéey ci état civil bii jàpp ngeen ni lii jaadu na mbokk fonctionnaire bu retraité nga jël ko ci cabinet maire di ko fay salaire boo xam ne mën nañ cee fay fukki agent ak ñett loolu war naa xewee ci dëkk bu sell bii di Touba mbokk yi yittewoo ay ndaw yu ko taxawu yu ko liggéeyal ñuy jël ay retraité di leen fay salaire yoo xam ne mën nañ cee fay ay ndaw yu bëri yu sawar yu amal njëriñ dëkk bi mbokk yi lii mooy tawat ji daal état bu Touba mbokk yi yóbbu ñu gën a jege askan wi te ñu jàppoon barab yi ñu ko war a def te fii may wax ak yéen ministre des collectivités locales signé na ko bu yàgg mbokk yi téye kayit yay xaar bés bu rafet lu tax duñ ko jëli lu tax duñ ko woo ñetti weer a ngi nii ñu di ko xaar mbokk yi te bu ñëwee war a mën a yombal askan wi ci jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ci wàllu kayit ñaata gone la fi seen avenir yàqu ci jafe-jafe kayit mbokk yi ci jamono ji ñuy soññee ngir nit ñi ami kayit mbokk yi la deuxième ville du Sénégal seen état civil di dund lii ñu wax décentralisation ñaata at ñetti weer ñuy xaar ngir jëmmal tawat ji daal état civil bu Touba nañ jox gëdd officier d' état civil yi signé liggéey bi bëri na risques yi bëri na considération yi néew na nañ jox gëdd agent yi nga xam ne ñu ngi xëy bës bu set di taxawu askan wi ci ñu amu kayit utal leen ndàmpaay lu leen di sawarloo xoolaat seen payoor noppal askan wi ci jaabante yi ak di xaar ñetti weer ngir jot say kayit mbokk yi lu xew fi jamono toll la deuxième ville du Sénégal war na noo dund jafe-jafe yii fi jamono toll war na noo jël ay retraité di leen fay te ay yu sawar nekk ci dëkk bi xam mën a amal dëkk bi njëriñ mbokk yi laaj rek mbokk yi ku xam wax ma nga war a signé di adjoint au maire di ancien sous préfet ba léegi mënta tàmbali liggéeyam ndax lan ata ngi nii mu ngi ci mairie bi amul bureau amoo bureau ñu jël bureau di ko jox ñoo xam ne kenn xamul lu ñuy liggéey ak di fay ñoo xam ne du ñu liggéey lu xew mbokki yi ndax dañ koo yëgul jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM